suñu histoire politique ni mu détour bi mu jël depuis l'incursion de Karim Wade dans la scène politique nekk fi léegi euh, mhm. parent euh, wala proche apparenté bu njiitu réew mi c'est mhm. presque devenu un délit mhm. mel ni les Sénégalais dañ ci am traumatisme euh, Macky Sall nekkoon na en opposition avec le régime de Wade. Mhm. Macky Sall dénoncé woon na euh, la présence l'incursion l'immixtion euh, de Karim Wade. non euh, ci si si si bi mu bi mu quitté si si si bi mu quitté. bi mu quitté bi mu quitté <laughs> bi mu quitté. bi donc doon nañ doon attaqué Karim Wade yow boo ñëwee nga subir la même chose. Mhm. avec le le le mhm. ci lan ngay conforter Karim Wade. lan nga comprendre ak yan leçon nga ci tirer. en tout cas Karim Wade euh, avertiroon na ma parce que j'ai eu euh, un échange euh, avec moom bi mu quitté pouvoir bi une fois mun ne ma mais prépare-toi nag parce que loo def ak loo deful dinañ la ko teg à euh, mon conseil mooy ah, mu ne il faut rester solide comme un roc et a raison euh, waaye loolu su fekkee yow da nga am une passion pour ne pas dire. da nga da nga da da nga am euh, devoir pour def politique euh, loolu warul la tax ngay yox yoxi wala ngay am looy ragal wala ngay reculer parce que euh, réew bu la soxlaa yow nga am ci yëg-yëg quel que soit danger bi nekk sa kanam wala obstacle bi nekk ci kanam da nga war a taxaw droit dans tes bottes def lu jub waaye avancer ci li nga jëm loolu man loolu mooy suma loolu mooy sama philosophie ci loolu même boo bokkul ak kenn te nga décider def politique da nga war a attendre à toutes sort d'obstacles muy obstacle judiciaire wala yeneen façon obstacle te am nañu dund yu gën a métti yooyu téeméeri yoon te tey jii terewul ñu ngi taxaw man dund naa terewul tey ji maa ngi nii toog di waxtaan ak yow kon pour man. Euh, est-ce que c'était à refaire. Euh, parce que man en fait euh, politique dama ko jël comme devoir dama dafa nekk passion ci man. Euh, donc gisuma lan moo ma ko mun a tere def xanaa di ñaan yàlla rek wër euh, loolu daal moo ci am solo li ci des yëpp euh, obstacle moom mënul ñàkk ci àdduna bi boo defee politique ak boo deful politique donc du loolu moo may tax ma yox yoxi ci.